tey dañoo ñëwwoon massawu population bi ci jafe-jafe yi ñu jànkoonteel fan yi ñëpp xam nañ ni waa ICS dañoo bëgg nangu tool yu bari ci Tobène ak euh, Màkka ak Kër Mëgéey population bi nag ñoom bala ñuy nangu seeni tool ndañ lañ leen wax lan la teg ci seen loxo loola waxtaan wi yàgg na amagul solution ñu xëy xëy ñëw jàpp fi ñu bari ki nga xam ni moo jiite front bi muy Cheikh Fall ñu nga ko fekk jawbe ci dep ci région Kolda jàpp ko ñëw itam ñoo xam ni fajar la ñu ñëw ci dëkk bi jàpp ñoo xam ni xañ ne xal yëguñu woon tiruñu ñu jàpp leen looloo tax nun nu ñëw ni nanu ñëw ko tàllal leen loxo ndax heure bu nu soxlaa ay élection dañu ñëw tàllal leen sunu loxo ni leen dañoo bëgg ngeen jàppale ñu kon bu ñu demee ba am jafe-jafe dinañu ñëw itam ànd ak ñoom ca nu ñuy fexe ba jafe-jafe yooyu saafaraw fekk nañ village bi ñoom xañ na jëlal nañ avocat eh, man keroog dem naa tribunal régional waxtaan nañoo maître xuy si ba lu yàgg bi ñu kiyee commettre nañ maître Alioune Badara Fall mu war a dem ànd ak maître xuy si ba vendredi défendre ñooñee nga xam ne jàpp nañ leen loolu parti réew mi moo ko def li ñu ñëw itam bi ñu ñëwee itam population bi tey xañ na ñoom jëlal nañu avocat ñun nag li ñu man mooy jàppale leen ñëw kët li ñu am xañ na xeeb nañ ko mais jël leen ni leen lii kët na ngeen ci fexe dolli ko seen dépense yi ngeen ciy def